bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa soppee soxna Fatima Lo maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmmi àddina ak àllaaxira di ñaan yàlla yàlla nangul ñu yàlla may gudd fan ak wérgu yaram ak mujj bu rafet yàlla te yërëm suñu way dawla yi yàlla jàppale suñu mbokk Palestine yi ñu ngi sàkku ci yéen ñaan man la seen mbokk xarjatu ba madame kebe naa leen di bëgg a présenté tey seen émission assis ak beauté di ci bëgg ànd ak soxna mayam bàcci incha allah te thème bu ñu bëggoon waxtaanee mooy njariñu njariñu bisaab incha allah kon ngi ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla yombalal ñu ba ñu am ci réussite incha allah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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و كرجي ما عندي نيو دي لين زيار دي لين نيانال توفيق في الدنيا والاخرة سوخنا خرجت ما عندي زيار di kontaan bu baax ci invitation bi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu fasaha ba lépp loo xam ne ñu ngi ko fiy waxtaanee rek mu doon loo xam ne njëriñ fa jazakunallahu xayran alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon mbokk yi tey jii wa billahi tawfiq ñu fas yéene waxtaanee ci astuce ak beauté li nga xamante ne moom mooy hibiscus ñu naan ko bisaab bu xonk mu nekk benn allié boo xamante ne macha allah bu ama am njariñ la ci li nga xamante ne mooy euh, ci yaramu doomu aadama comme nu ko amee ci li nga xamante ne moom mooy ci wàllu deram ndax li nga xam ne mooy toppatoo li nga xam ne moom mooy sa yaram dafa di loo xam ne waajib la lu war la si ki nga xam ne moom mooy jullit bi ku dul jullit sax ndax li nga xam ne moom mooy yaramu doomu aadama dafa di loo xam ne amaana la déppo la ab ndénkaane la boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf la koo dénk te bu ko ragaa yowmal xiyaam dénkaane boobu nañ la ko laaj kon lépp loo xamante ne yaa ngi koy def sa yaram yow jullit bi na nekk loo xamante ne lu islaam nangu la lépp loo xam ne islam nangu na ko rek pour taaral jigéen ndax jigéen mooy koo xamante ne dañ koo bind ci taartaarlu kon taartaarlu boobu dafa di loo xam ne nekkul ñàkk ngëm yàlla la nekkul imaan bu wàcc la déedéet ndax boo demee ci saxaaba boobu ñu daan wax abu dardar moom da daan wax ni que moom dafay bëgg di toppatoo boppam di taar taartaarlu pour li nga xamante ne moom mooy soxnaam comme ni soxnaam di taar taartaarloo tam pour moom ndax ki nga xam ne moom mooy jigéen jullit bi saa su ne war na nekk koo xamante ne dafa war di taar taarlu ci këramu borom këram lépp loo xamante ne rek luy indi taar la luy dolli taar te mu nekk lu dagan rek kon jigéen jullit bi moom da war a góorgóorlu kon looloo waral li nga xam ne mooy waxtaan astuce ak beauté ndax gannaaw bu ñu sellalee ruu yi ci li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla kon tam dañuy ñëw tam defar li nga xam ne moom mooy yaram yi ci lépp loo xam ne lu naturel lay doon te du indi benn gaañ te nit ki dina ci am li nga xamante ne mooy kontaante borom bi subhaanahu wa taala te borom këram tam su ko xoolee saa su ne rek day kontaan ci moom kon tey incha allah lu leen waxtaan ak mbokk yi ci li nga xamante ne moom mooy bisaab bu xonk li nga xam ne moom lay def ci deru doomu aadama. waa waaw alhamdulilah rabbil alamin kon tey jii bu ñu ñëwee ci ngëneel yi nga xamante ne moom moo nekk ci bisaab bi ndax dañuy indi ngëneel yi ba pare daal di indi astuce yi nga xam ne moom la ñuy def ci li nga xam ne mooy bisaab bu xonk bi. ndax bisa bu xonk bi dafa di benn plante boo xam ne origine en général boo xoolee afrique bëri na fi torop ak fi nga xam ne moom mooy asie moom depuis ci jamono yu yàgg yàgg sax da ngay gis ni dañ ko daan jël di ko def ci li nga xam ne mooy si ay produits cosmétiques soit ñu koy def euh, ay huile wala hydrolat wala ñu koy def tamit ci li nga xam ne mooy soin karaw mu nekk loo xamante ne dafa am ay propriété yoo xamante ne yu nutriments yu ama am solo yoo xam ne dafay régénérer li nga xam ne moom mooy deru nit ki daf koy hydrater hydratation nit ki da koy soxla pour mu mën a am euh, peau bu rafet bu liis moo am éclat ndax euh, du duñu naan assainiment li nga xam ne mooy ndox te kon ku bëgg peau bu rafet tamit ça veut dire que il faut ngay naan ndox mu bëri di lekk fruit di lekk ay légumes comme fruit itam fruit boo xam ne ñëw na ci saison bu nekk rek borom subhanahu wa taala wàcce na ay fruit kon nañ koy boole suñu alimentation ak li nga xam ne mooy naan ndox kon dafa di produit boo xamante ne bu ama am solo la dafay indi hydraté day hydraté maanaam bu fekkee nit ki yaa ngi koy utiliser soit ci lotion la wala ci crème la wala ci gommage wala ci masque dafay hydraté li nga xam ne moom mooy der bi hydratation bi mooy da day tax ba der bi du wow parce que bu fekkee der bi dafa wow du am éclat donc moom dafay protéger li nga xamante ne moom mooy euh, deru nit ki li nga xam ne moom mooy bisaab bu xonk boobu hibiscus bi dafa di loo xamante ne lu baax a baax la ci li nga xam ne mooy suñuy produit de beauté te mu nekk produit boo xam ne euh, bu naturel la dañ ko war a boole ci li nga xam ne mooy suñuy produit cosmétique noonu la baaxee ci li nga xam ne moom mooy der noonu la baaxee itam comme li nga xam ne moom mooy euh, wàllu kawar ndax li nga xam ne moom mooy bisaab bu xonq bi Euh, dafa am benn atu boo xam ne dafay rajeunir maanaam dafay beesalaat li nga xam ne moom mooy euh, deru nit ki ndax boo xoolee su bëri jigéen ñi léegi ñu ngi daw ci li nga xam ne moom mooy ay collagène yeneen produit kon tey bisaab bu xonk bi dafa am collagène boobu noonu te collagène yooyu ñuy naan nit ki soo ko bàyyee rek yow da ngay mel ni nga meloon mais bii dafa de bu produit boo xam ne bu naturel la ba pare du la indil benn effet secondaire ndax dafa am ay molécules yoo xamante ne moom mooy tax ba deru nit dafay set dafa am li nga xam ne mooy euh, ay yenn agent yoo xam ne comme yu antioxydant la antioxydant boobu ci nekk moom mooy lutter contre radicaux libre yi c'est-à-dire que mooy radicaux libre yooyu moom mooy tax nit ki deram dafay màgget kon bisaab bu xonk bii nii bu fekkee da kaa boole ci li nga xam ne mooy sa produit cosmétique donc dafay tax ba sa der bi dina set benn ba pare da koy rajeunir maanaam day tax ba sa der bi dafay beesaat ndax nit ki naturellement soo demee di jël âge par rapport bi ngay jamono bi ngay am 15 ans 16 ans 18 ans ba 30 ans bokkut ak jamono bi ngay dem di jël âge 40 ans jëm kaw kon waral nga jël li nga xam ne moom mooy bisaab bu xonk bi boole ko ci li nga xam ne mooy produit cosmétique euh, parce que dafay euh, defar li nga xam ne moom mooy euh, der bi comme li nga xam ne moom mooy bisaab xonk bi comme niñ ko waxee tamit dafa nekk lu baax a baax pour li nga xam ne moom mooy wàllu karaw bu fekkee sa karaw dafay damm wala fay am ay fourche donc del boole li nga xamante ni moom mooy bisaab bu xonk bi ci li nga xam ne moom mooy say euh, bain d'huile wala masque yi ngay defar pour sa karaw wala ba si diw bopp sax li nga xam ne moom mooy bisaab bu xonk bi ndax antioxydant bi nga xam ne moom moo nekk ci bisaab bu xonk bi dafay tonifier li nga xam ne moom mooy Euh, kanamu nit ki wala yaramu nit ki fekkee da koy utiliser parce que kanam yi yaram yi dafay soxla li nga xam ne moom mooy euh, tonis kon tonis boobu noonu ci lan lañ koy fekk ci li nga xamante ne moom mooy euh, bisaab bu xonk bi dafay indi tamit li nga xamante ne épiderme bi ndax nit ki da dem de temps en temps da ngay gis sa yaram yenn saay der bi day mel ni lu ñuul wala di am ay picc ak yooyu noonu kon dañuy soxla li nga xam ne mooy bisaab bu xonk boobu ci suñuy produit cosmétique pour mu euh, defaraat li nga xam ne mooy épiderme bi pour nit ki tamit mën a trouver waat li nga xam ne mooy éclat de la peau léegi nit ki bu fekkee yow da ngay diw diw lu mu gën a baax lu mu gën a cher te yow doo gome sa kanam doo gome sa yaram doo def ay masque doo def ay lotion kon yow li ngay diw diw bi mën na baax mais lan moo tax efe bi doo ko gis parce que yow doo parce que dafay am ay peau morte dafay am ay der yoo xam ne dafa dee soo xoolee nii doo ko xam mais lan moo koy dindi li nga xam ne moom mooy gommage bi kon nag euh, bisaab bu xonk bi da ciy baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy peau morte yooyu noonu ndax dafa am li nga xamante ne moom mooy ay actif yoo xam ne li muy def mooy antioxydant bi ci nekk dafay defar li nga xam ne moom mooy der bi baax na tam ci li nga xam ne mooy circulation sanguine maanaam nit ki deretam ni muy dawee ndax gommage bi boo ko defee dafay tax ba sa der bi deret bi dafay circuler bu baax kon baax na tamit ci li nga xam ne dañoo am peau fragile ndax yenn saa da nga gis nit koo xam ne lu mu diw ci yaramam rek wala lu mu ci def rek soit dafay dagg wala am ay picc kon bisaab bu xonk bi baax na ci li nga xam ne mooy peau yooyu nga xam ne dafa fragile parce que moom daf koy indil hydratation boo xamante ne bu baax a baax la baax na tam ci li nga xam ne mooy seen yaram dafa déshydraté maanaam dañuy am ay peau sèche seen bi dafay wow koŋ kon moom dafay indi hydratation boobu noonu baax na tam ci yaram yi nga xam ne wala po yi nga xam ne dafa fatigué de trop. waa soxna Xarjata aywa jazaakillaahu xayran wa baarakallaa fiik waa incha allah après dinañ indi li nga xam ne moom lañ ko mën a utiliser ci suñuy produit de beauté léegi fii nii dañuy laytaay rek li nga xam ne moom mooy njëriñ yi léegi suñu paree si njëriñ yi incha allah dañ leen indil li nga xamante ne moom la ñuy def ci li nga xamante ne moom mooy euh, bisaab bi nan lañ koy defee suñuy produit de beauté incha allah. Euh, kon léegi niñ ko waxee rek mën nga appliquer li nga xamante ne moom mooy bisaab bi def ko sa benn eau florale maanaam nga def sa lotion boo xamante ne gannaaw boo nettoyé sa kanam ba pare def sa gomaay sa masque mën nga utiliser li nga xamante ne mën nga utiliser li nga xam ne mooy eau florale boobu noonu diw ko sa kanam soo paree daal di jël li nga xamante ne. moom mooy sérum bi daal di ko ciy diw après nga daal di ci diw sa kon noonu nga koy toftalee bu ko defee macha allah ba pare moom moom soo ko defee di nga gis résultat incha allah soo nettoyé sa kanam ba pare nga jël eau boobu daal di ko ciy diw wala li nga xamante ne moom mooy huile hibiscus bi mooy huile bisaab léegi huile bisaab boobu noonu ndax bisaab boo xoolee amul huile kon niñ koy defee mooy boo amee sa bisaab def ko en poudre waaye wala bu fekkee xob yi nga am yu woow macha allah boo ko raxasee bàyyi ko mu wow nga daal di koy dëbb soo ko dëbbee daal di lay nga daal di jël sa ñaari kuddu yu mag jël sa euh, genn wàll walaat huile d'olive wala huile tournesol huile boo xam ne bu neutre wala huile demande douce nga dal di jël euh, poudre boobu mélanger ko ak moom yëngal bu baax a baax après nga teg ko au bain marie nga teg ndox mu tàng jël bouteille verre bi bi nga def fa huile bi ak bisaab bi teg ko ci kawam ba mu tàng nga teggi bàyyi ko ba mu def une semaine nga daal di segg loolu mooy sa huile bu xonk loolu mën nga koy jël tamit di ko diw ci li nga xam ne moom mooy sa kanam dafay indi éclat de la peau di ko masser légèrement kon bien fait la am tamit ci li nga xamante ne moom mooy wàllu karaw mën nga defar li nga xam ne moom mooy mag bi masque mën nga jël bisaab bu xonk bi en poudre boo ko jëlee nga daal ciy def li nga xam ne mooy huile de coco wala huile d'amande douce daal di mélanger su la neexee tam mën nga ci def tuuti euh, poudre de baobab mooy xobu xobu euh, buy bii nii poudre bi nga def ko ci wala nga jël xobu ne euh, poudre nebedaay nga mélangé ko ak moom daal ci def euh, li nga xamante ne moom huile bi daal di koy diw ci karaw gi gannaaw bi nga defee bain d'huile ba pare nga daal di ko ciy diw takk sa mbuus bàyyi ko ay 30 minutes après nga daal def sa shampoing wala mën nga si def sa huile d'argan wala huile de ricin parce que huile argan huile de ricin bokk na ci huile yi nga xamante ne dañuy sëkkal karaw léegi kon ba tey li nga xam ne moom mooy bisaabu xonk bi vitamine C euh, bi ci nekk ak euh, acide de fruit bi mu nekk benn atu boo xamante ne loo ama am solo la ci éclat de la peau maanaam pour sa peau mën a set mën a nes nesi nga am peau bu rafet bu set te lépp dafay nekk lu naturel parce que dafa am vitamine C am li nga xam ne moom mooy acide de fruit bi kon mu nekk benn atout boo xam ne bu baax a baax la ci li nga xam ne mooy éclat de la peau de acide de fruit yi nga xam ne moo ci nekk na boo xoolee yenn saay boo jëndee da ngay gis yenn produit yoo xam ne dañ lay bindal acide de fruit kon acide de fruit yooyu noonu dafa baax trop sax li nga xam ne mooy éclat de la peau mais ci ëpp dafay am ay euh, produits chimiques donc bi mu nekk boo xam ne bu naturel la acide de fruit bi dafa baax trop trop pour li nga xam ne dafay renouveler li nga xamante ne moom mooy cellule morte yi par exemple nit ki da dem ba benn moment nga gis sa kanam gi dafa lëndëm wala dafa ñagas ak genre yu mel noonu parce que peau morte yi ak cellule morte yi ci nekk donc dafay soxla pour ku ko boste pour mu mën a am benn éclat te éclat bi ngay am bu naturel lay doon boo xamante ne bu rafet la macha allah te jigéen ñi moom vraiment dañoo bëgg li nga xam ne moom mooy peau bu rafet peau buy nes na ci ah dañ koy bëgg te bëgg nañu utiliser tam loo xam ne lu naturel la te am lenn loo xamante ne daf leen di indil benn effet secondaire kon moom vitamin C boobu ak acide de fruit bi ci nekk moom moo tax muy def loolu dafa lay débarrasser day dindi lépp loo xam ne luy peau morte lépp loo xam ne luy der bu dee bu nekk ci yaram bi rek li nga xam ne moom mooy bisaab bu xonk bii nii daf koy génnee donc dafay renouveler li nga xam ne mooy peau bi ndax tey ji dafa mel ni boo demee dugg sa biir tool nga gis ñax yeeg yëpp wër ko ah nga daal di dindi ñax yëpp da ngay xool ni que tool bi dafay yaañ bi ba pare euh, li nga fa ji dafay sax bu baax a baax kon tamit noonu la mel su fekkee da ngay utiliser li nga xamante ne moom mooy bu xonk bi kon dafay euh, renouveler li nga xam ne moom mooy épiderme bi daf lay débarrasser li nga xam ne moom mooy euh, peau morte tamit. kon li nga xam ne vitamine C bi nga xam ne moom moo nekk ci euh, bu xonk bi moom moo tax dafay garantir nit ki li nga xam ne mooy éclat de la peau maanaam même bu fekkoon sax nit ki teint noir la ak genre yu noonu da ngay gis ne teint bi dafay set dal dafay nes nes dafay am éclat même donte nekul nit ku xees parce que vitamine C bi nga xamne mom mo ci nek daf koy garanti à 100% comme tamit non la koy defé ci li nga xamne mom moy karaw gi ndax actif yi fa nek dafa may actif yu hydratant yo xamantene ben benn atu la pour hydratation ba pare dafay protéger tamit li nga xamantene mom moy kanamu nit ki wala li nga xamne mom moy walu karaw nit ki tamit ndax actif yi nga xam mom mo moo nekk ci li nga xam mom moy bisab honk bi da fay protéger li nga xam mom moy euh épiderme bi ba paré tamit da fay participer ci li nga xam au maintien du bon niveau d'hydratation da fay da fay tax ba hydratation manam boko déggé nit ki soy naan ndox sa yaram dafay hydraté kon li nga xam mom moy bisab honk bi ni bii nii bu fekkee par exemple en lotion la wala masque la wala gommage la wala ci diw la mom daf lay indil euh, hydratation bi nga xam mom nga soxla ba pare fay tax ba nit ki yaramam fay liis noy nepp ndax kat ku ne jigen kat ne yaram bu liis ndax jigen mom wax dëgg yalla loxo fu mu tegu rek moom dafa wara a tax ma sha allah ba pare fay illuminer li nga xam mom moy mooy teint wu nit ki kon mbokk yi euh, gëna bañ indé ndëriñ yi ñu daldi indi li nga xamantene non lañuy la li nga xam mom moy gambi comme gambi yépp mi ngi ni ak explication yo xam ma sha allah euh, détaillé nañ ko bu baaxa baax léegi lu tax ñu def euh, ci suñu lotion bi li nga xam ne moom mooy fenugrec mooy euh, ba xul ba moom ñu bëri xam nañ ko mu nekk tam benn allié boo xam ne bu baax a baax la ci wàllu der moom tamit dafay indi li nga xam ne mooy hydratation ci li nga xam ne moom mooy yaram bi daf koy adoucir da koy noyal ba mu nooy nepp bu fekkee der bi dafa rasoon daf koy defaraat ba pare dafay renforcer li nga xamante ne moom mooy deru nit ki bu fekkee par exemple der bi dafa bàyyi ak yooyu parce que au fur à mesure yenn saay coono bu bëri mën na ko indi nga gis nit ki kanamam day ras wala suufu bët yi mel ni lu xaw a gonfle ak yooyu te yenn saay coono moo koy indil nit ki kon yooyu nañ koy boole ci li nga xam ne mooy suñuy astuce de beauté kon moo tax bi ñuy bi ñuy xooj bisaab bi ñu defaale tuuti li nga xam ne moom mooy euh, fenugrec bi mooy xulba bi ba pare moom santé général lay indi moom macha allah ndax fenugrec moom comme li ci borom xam-xam yi wax rek jar na sax jaay sa or jëndee ko li nga xam ne moom mooy fenugrec ndax njëriñ yi nga xam ne da cee nekk ñu jël tam li nga xam ne moom mooy argile bi surtout ñu argile vert bi moom lañ utiliser parce que argile mooy bu vert bu xonk bu weex bi mooy kew bii nii argile yëpp dafa bëri façon yooyu dafay génne li nga xam ne mooy excès de sébum ndax am na ñoo xam ne seen kanam dafay def tout le temps dafay niin rek foo ko fekk day niin niin yu métti yooyu kon ñooyu li leen di conseillé mooy nañu seen masque nañuy def li nga xam ne moom mooy kew bi léegi argile vert bii nii dafay génnee bépp impureté comme argile beneen bi tamit dafay purifier li nga xam ne moom mooy deru nit ki ba pare dafay stimuler li nga xam ne moom mooy euh, der bi da koy rendre ba mu nekk loo xam ne lu homogène lay nekk ba pare dafay cicatriser tamit bu fekkee nit ki nga am ay impureté picc yoo xamante ne dafa toj yenn saay ba pare jëlal li nga xam ne moom mooy kew bi bu fekkee amoo bisaab beeg yooyu sax soo ko dëbbee ba mu mokk hmm, nga daal di jël ndox wala nga jël eau de rose daal di koy mélanger noonu rek nga daal di koy diw ci kanam gi bàyyi ba mu wow nga jël ndox mu nugg daal di sëlmu dangay gis ni que sa yaram sa sa kanam gi dafay dafay fekkoon dafa ras ak genre yu mel noonu yëpp da koy defaraat. Euh, kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ li nga xam ne moom mooy astuce et mu nekk nag produit boo xamante ne ku ko xamutoon tey jii xam nga ko ku ko amutoon nag dawal uti ko ndax euh, boo duggee ci marché yi mbuusu bisaab foog naan gën saa seer cent franc lay jar. nga ñëw am si li nga xam ne mooy sa produit de beauté yu naturel comme niñ koy waxee rek li nga xam ne moom mooy argile yi am na ay boutiques yu koy jaay boutiques yi nga xamante ne ñuy jaay ay produits euh, naturels dañuy jaay li nga xam ne mooy argile bi fekkee amoo kew bi soit argile vert la wala argile rouge wala argile blanc bu mu ci mënta nekk rek ndax moom dafa baax trop dafay génne peau grasse baax na ci ay boutons te baax na tamit ci ay taches te li nga xam ne moom mooy argile bi sax tamit nekkul rek dañ koy soxla ci li nga xamante ne moom mooy wàllu beauté euh, ndax dañ koy naan dañ koy naan dañ koy def li nga xam ne moom mooy bain de parce que dafay génnee li nga xam ne mooy acidité bi nekk ci gémmiñu nit ki kon borom bi subhaanahu wa taala baaxe nañu te yombal nañ tamit ay produit yoo xam ne yu naturel la yoo xam ne boo yootoo rek daal see jot kon tey jii ku ne man euh, mënuma kaa defar xëy na tayal mooy tax kon jigéenu jullit dafa war a njaxlaf lool sax macha allah sawar bu ko defee même donte benn yoon sax ngay jël ci mois bi wala ci semaine bi mën a def li nga xam ne mooy sa routine routine de ndax euh, dañuy daw dëgg la naaj beeg coono yeeg yooyu yëpp da ngay gis koo xamante ne kanamam day am ay impureté yenn saay peut-être produit yu cher mooy tax du ko mën a utiliser mais wàccee nañ si loo xam ne lu yomba yomba la loo xam ne mën nga saa utiliser ndax tey jii bu dee kew bi la meer yi jaay ci taabal yi defe naa juróom sax wala fukki dërëm di nga am sa mbuusu kew di nga am sa mbuusu bisaab bu cent franc huile d'olive jafewul huile de ko moom tamit jafewul bu fekkee amoo yeneen yi ñu ci war a def mooy conservateur yi ak genre yu mel noonu kon yow mën nga defar benn quantité bu ndaw rek boo xamante ne yow da nga koy utiliser du jar nga koy bu fekkee amoo frigo mën nga koy utiliser ba pare kii noonu mais bu dee gommage bi moom gommage bi mën na toog lu yàgg euh, du def du def du def dara mi ngi noonu kon lii mooy li nga xam ne moom lañ indi woon tey ci li nga xam ne moom mooy astuce et lépp lu si jub nag ñu santee ko borom bi subhanahu wa taala moom mi ñu defal yombal ak jàppandal ba ñu mën a kaa taxawee lu ci dëng nag di ko jéggalu nag te xam ne ci matari doomu aadama la doomu aadama mooy ki nga xamante ne mooy kiy juum kon di ko jéggalu aquli qawli haza astaghfirullah li wa lakum assalaamu aleykum na rahmatullahi wa barakaatuhu wa aleykum salaam wa rahmatullah waaw xajatu macha allah wa fiki jazakillahu xayran wa barakallahu fiik macha allah waaw euh, ku ci bëgg rek soo contacter Espoir boutique rek incha allah am nañ fa ay produits yoo xam ne yu naturel la mi ngi noonu numéro bi mooy numéro bi nekk noonu ci kii bi rek bi bi nekk ci sama euh, kii bi sama contact bi noonu waaw Espoir boutique ñun ñu ngi nekk fii nii Dakar. Euh, Sébi lañ gën a jege ak Diamniadio euh, ñu ngi ci diggante boobu noonu képp ku ñu woor si numéro boobu rek 76 538 14 33 wala 77 212 87 17 incha allah loo ci mënta soxla rek ci li nga xam ne mooy produit naturel rek aywa baarakallah fiiko jazaakillah